baax waa Pikine maa ngi gërëm bu baax waa Pikine Modou Mbacké maa ngi lay gërëm bu baax jàmbar jàmbar jàmbar di gërëm tey population pikin yëpp di féliciter suñu rakk di masaw bu baax Balla Gaye ak bépp supporter am tey yu nekkoon ci stade bi tey làmb ji heure bii laa war a wax parce que ku nekk dafa dugal ay TikTok lu nekk mu wax ñu wax ma ko yaa ngi may dégg est nañu jàpp ni tey ñooñu di ci Pape Pape Sarr lekkul xaalisu mbër. Mhm. man duma ma tàllal loxo mbër. Mhm. samay million ci làmb la dem. Mhm. ba tey bàyyiwuma. waxoon naa leen waa Géejawaay bippe ngeen ñu bëri crédit. tey suba wax nga ma ko. barke Rasulullah tey hymne bii ñuy naan borom kagul bi. kilifaam laa dugal ci stade bi. hymne borom kagul boobu nit ñi di ragal. keroog bi muy dajeeg Eumeu Sène. la dageer dama dugg sol sama kagul. billahi wal kitaabi bu duggoon si si géew bi. man li ma métti rek mooy bu ñu ma mayul ma dugg barki yàlla su ma duggoon ci géew bi dinaa leen woon ni kii nit kese la sama maam Labaat muy Labaat Fall ñëpp xam nañ ni transporteur la woon nekk milliardaire Ndiouga Kébé di milliardaire li Mbaye di milliardaire te borom kagul bi yobul seen bakkan yàlla mooy maye yàlla mooy joxe mooy yóbbu ruu yaa ngi may dégg est nga mais boo ñaar ni mu bëree dama ne la mhm. sama sama sorti yëpp Balla Gaye boo ko bëggee daan tànk bu mu teg tegal beneen bi parce que damaa indi ñaari combat Eumeu Sène kenn écarté wu ma ma dugg ci digg géew bi Eumeu seen buy bëreeg Balla Gaye bu man lay mujjee waxal ak la ñang ma ko kii bu la daanee damay rey sam bopp parce que gis na arme bi ma yore barki yonent bi daa am lu tax lu tax tey jii ndam rek moo ñu jik boo Niang billahi wallahi pare na tey c'est la première fois boo Niang ngeen bawul këram pàppaay na mooy lan wax la. billaahi wallaahi li may wax mooy. li may wax mooy lenn moo des booy ñaa géejawaay Ahmed ay dara ko maire bi maireu géejawaay bu nekkee góor lañu wax ju ñaaw yi ñu doon wax yëpp man jéggal naa leen waaye Ahmed Aïdara amal ngor parce que booy ñaa ku mun a meeru maireu waay la. mais ñu gis Balla jël tànk booy ñaa mënalu ko dara. barki rasulullah du ko si daan Serigne Touba laa la giñal barki Seydina Mouhamed man damaa seetaan Boy Niang mu préparé mhm. Boy kenn mënu ko gis fenn kenn mënu gis fenn man dama ko téye mooy préparé ak Eumeu Sène Pikine yëpp dat xoolal téye ko Lac Rose <laughs> laay ñi dañoo dof sax maanaam ama Sène ak Boy Niang moo ko jox kele bi te ñoom ñu ngi naan Eumeu Sène bii di ñëw tuddee tuddee ko ama Sène asib feer mu ngi amaat asib en fer. Eumeu Sène moo jox clé bi Boy Niang. mais loolu ngay wax ndànk yow mooy magam tey ku gis maa ngi dégg ñu naan ama yee ama di seytaane di jaxase Pokola tey won na ni ñëw gunge gunge magam Boy ñaa tëgg tëggu ñun xam nga ñoo ñu sonal dëkkaan yi ñoo ñu sonal fii Pikine mais ñun dañu doon taxaw suñu kër di seen géeju géejawaay billaay wallaay tallaay saa ñu amee ku gaañu ñoom. ñun ñoo leen koy dencal fii ci almeri chaque jour bu ñuy bale ñu leen di ziareel seen néew nañu xam ne man ñun ak ñoom du ñu benn du ñu benn. mais bu ñu si combat bi. waaw Balla Gaye ban la dama ne boo ñaa kii pour boo pour nga daan ko da ngay tëj xel bi tëj xam-xam bi bokk ak moom doole xool faay bi booy Balla Gaye day benn Balla Gaye daa benn erreur Balla Gaye ñetti ball ñetti erreur la am ci làmb kenn dàq ko bëri nag mais daa benn. li voilà benn mooy comme nga tibb suuf nga bës camion bi camion bi wàccee suuf si loolu mooy benn bo bo tey Balla Gaye daa benn mooy premier combat Eumeu Sène Balla Gaye loolu mooy benn daa benn te ñaari soo xoolee Balla Gaye carrière am premier combat Eumeu Sène la jaaxaan ak tey ñaari jaaxaan mais nag tey xoola jël buñ ko daan man maa ngi leen di ñaan ngir yàlla ñu wàññi wax ji nee nañu ku bëri wax ki daan na leen kii day jëf douze victoire la am géejawaay douze victoire la am géejawaay jeexal na leen tàq daan mag daan rakk ci biir kër daan kot su bi kon la kooku warul nekk meeru géejawaay mais sànq dañoo dugg Pikine waaw ñu bëri fu mu toll nii ñu ngi naan Pikine nañ bokk ndey ak baay nañ booloo bu ñu paree si loolu ñun ñëpp tey gis nañ à chaque fois bu ngeen booloo da ngeen am ndam mhm. tey yàlla def ngeen am ndam mhm. mais ñu bëri fu mu toll ñoo ngi naan booy Niang fu mu war a jëm mooy na ko Modou Lo may chance. non Modou dafa nekk si contrat ak Ama Baldé te dugalul kayitam CNG kenn waxagul fu muy féetee dafa am combat ak Ama balde nit ñi pour xam ko tey bu nekkee demee ba nga xam ne ko laay mënul tëgg Ama Baldé contrat boobu mu ne may na ko Modou may na ko Ama balde boobaa nag lamb dina leen boole mais man booy Niang laay wax sama rak sa tànk bu mu tegoo ci géejawaay tant du revanche du combat kan la fay bëral jeexal na leen ñëpp la soccoo. mais ñu bëri ñu bëri ne combat waa Pikine dañ leen jëndoon ne kan la ñu jëndoon kan ma ne la maa gën a naqaree jënd Pikine parce que man à l'âge de 15 ans 16 la forme million lekk ko sama dé fekk nañ ma fii ñuy bëreeg ñoom. Sokh moo ma mun a seede ñu proposé ma ay millions yu bëri pour tuba yu Eumeu Sène billaahi wal kitaabi Sokh moo may seede Sokh Sokh mbër mun na ma seede damaa dem ba ci Eumeu Sène laajal soq li mu leen wax dama leen ngeen laaj looju soq ma ne leen ñii suñ ma joxee seen xaalis ay tisat ak billet laa koy jënd ba pare indi Bécaye Mbaye ma wane xaalis bi gis nga lii nii lii la Balla Gaye mujjee sotteekoo ci digg géew kilifa boobu di ko jox borom kagul bi moom laay dugal ci stade bi maa ngi ëpp nee naa leen du milliard du million mais ay pexe la ku fanaan ci ci stade bi 18 jours ma ànd ay boy chaque jour sama alal ma jënd leen 110 saako 50 kilos la ñu sulli ci stade bi. mais loolu daanu. ñi am na ñuy wax revanche man na am diggante Boy Niang ak Lac de Guiers. non làmb la. Mhm. xam la Lac de Guiers man Lac de li des sama dund. la déggee li des sama dund li des sama dund man dootuma ko waxatu lu ñaaw muy nit ku baax. xam ne xam ne la dëggee nit ku baax seen coow moo may waaye kontaan ngeen bañ leen tudd rek. butéel bi butéel bi butéel bi da nga wax léegi ne borom kàggul bi. képp ku xam Tiwaawoon. Uh-huh. xam na benn benn village bu ñuy wax Ñanduxum. Uh-huh. kooku mooy titulaire borom kàggul. titulaire am. waaw mooy chef am. <laughs> déggoo ma ne la sama téléphone moo fay kon ma won la photo normal nee woon naa la du yàlla ragaluma ko non bàyyil ba bàyyi ma def si code bitel bi Pokola laa koy dencal. mais saa bi nga sa lamb du xaalis. dama la la lamb du xaalis pexe man laa la wax nii maa dugal Eumeu Sène ñaari victoire yëpp yu mu am ak Balla Gaye man Pape Sarr. billaahi wal kitaabi man damaa ci dara billaahi wal kitaabi xam nga ne tey la def 18 jours ñuy fanaan ci stade bi 32 personnes. dem gis na leen fa. dem saako 50 kilos lañ fa ay xool nga jël ginaar jël ay puso yu bëri duggal ko ci ay lango loolu noonu sa ñun dañoo fanaan ci stade bi ñooy taal lamp yi ñoo koy fay ñun dëkk fii nga ñuy rey suñu stade fa laam ñooy taal lamp yi ñooy fay ñooy tëj buntu yi fii lañ dëkk non non non ñun sekkuñoo kenn ma wax rek te yàlla tax képp ku nekk ci ci ci Balla wax dëgg yàlla ñëwul si ñun ñun suñuy ñaankat doy nañu te affaire mystique u Balla Gaye ak booy Niang man xaw ma ci dara mais xam naa ni man jëli nañu koo xamante ne jëli nañu koo xamante ne sama digganteeg yàlla lu borom kagul bi defar mu yàq non moo ma ko jox moom laa àndal mooy bu mooy ñi ki nga xamante ne waa kër booy ñaa comprendre ñu woon mu takk masque bi gars yi di ko dàq kooku la woon. maa gis nañ gis nañ ku takk masque bi jël benn kii daa teg si kaw. bu weex voilà ndaanaan bi def si code. buuba ak Balla mais buuba def si code ñoom dem nañ foofu buuba def si code mu xam ne man sama xarit la ñu proposé ko ay millions yu bëri mu ne man du ma ñaanal kenn ndax Pape Sarr. buuba def si code maa ngi lay gërëm bu baax kii doom rek laa ko war a tuddee ay millions lañ ko proposé ñoo xamante ne du Aziz Ndiaye nag du Baye Ndiaye ay soppe Balla Gaye pour Balla Gaye am ndam mais billahi daf leen rejeté kooku noonu dinaa ko fay ba wis ko kooku mooy gor ay millions man musuma ko may cent francs mu xam ne ni Pape Sarr am na nu mu mel Pikine du ma ko xañ lii mu ne leen man foraluma kenn billahi wal kitaabi te bu mu ñëwee tey ci stade bi daf maa woo mu ne ma Pape Sarr bis boo coowee ñàkk làmb ji mooy bi may xatraay pour dugg si borom kagul bi dama doon sumi kagul bi sang ko man duma ma ragal ñooñu man Thierno Mountaga moom a ngente Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak ak ak Seydou Nourou Tall ñoom a ngente tufli sama nopp bi man du ma takk sax fas man ba bokk ak géew Modou boo ko ak géew Balla Gaye bokk ak géew Lac de Guiers kenn gisuma ma tàpp ragalu ma leen du ñu ruu gars yi nag yooyu dañoo mën a nappe tey nag indi na mbër daanu na jël bu gaaw nañu dimbali nag ci kagul bi léegi nag seen CNG laay wax ñu def seen liggéey dañ ko fi tere ñu bàyyi leen mu dugg CNG laay wax di masawu Balla Gaye bu baax dégg naa dafa damm waaw loolu lañ ma wax nee dañ ko daan ba mu damm ah waaw daa damm mais mais mais loolu loolu lu muy firndeel parce que Sénégal yu bëri boo ñaar sax wax naa ko màggen nga gaynde gu mag bi ci làmb dafay xuuxalee du mat du mat dafay xuuxalee way boobu noonu nee na boo ñaa mbote la daa jàpp tànk bi loko ba mu jeex nee nañu Balla gay moo dàq bëre Balla Gaye moo ëpp doole Balla Gaye moo ëpp xaalis Balla gay moo ëpp ginnaaw Balla gay moo ëpp doole waaye ñoo leen ëpp pexe pexe la ñu daanee tey pexe waaw non kooku dañ koy soccoo soccu guro la kooku laaj ma leneen kooku dañ koy soccoo. mais est-ce que fu mu toll nag Eumeu Sène. maa di wax Eumeu Sène del wax asib fer. asib sooy wax diggante Eumeu Sène ak Balla Gaye loolu asib en fer la barki Seydina Mohamed xoolal man instant yii nii xam lan la ma Pikine war a def chaque mercredi ñu jox ma ay àllarba.